وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر nga xam ne ñëw nañ teew si fii ci barab bi ngir ci wooteb sëriñ bi nga xam ne dafa ñaan ñu santale ko boroomam moom mii moo waroon kenn ku nekk mu ñëw ci bunt bi teertu la yóbbu la ci sab dal loolu yi nag xam nañ ne jéggal ngeen ko ko ngir xataay bi ak yitte yu bëri tax na ñun ñii mu tànn ñu ngir ñu wuutu ko fi ngir teeru leen dalal leen kon nag loolu moo tax ngir mu ñëw ni mu koy defee at mu jot yàlla na yàgg dañu yàgg koo fekke ngir saafoonte ak yéen nuyoo ak yéen ci turu sëriñ bi su ko defee niñ ko daa doxale rek incha allah suñu tuddee délégation bi ñu may ki jiite délégation bi mu ñëw su ñëwee ñu nuyoo ak sëriñ bi saafonte te mu gaaw su ko defee bu noppee am ku jël kàddu ci seen tur su noppee sëriñ bi tontu leen ngir ñu ngi koy xaar fële ci Daaru Marnaan te waxtaan wi di waxtaanu guddi gi day teel a tàmbali tey incha allah kon su ko defee ñuy tàmbali. ci délégation Nder sëriñ Serigne Mouhamad Jullit Kunta fi nekkee mën naa ñëw nuyoog Serigne bi waaleykum salaam délégation askay Mouhamad yu Mbay mën naa mën naa jege si Mouhamed Aliou Mbaye jiite as askaay euh, famille Serigne Abbas Sall Serigne Abdallahi Sall mën naa jege si ana Serigne Abdallah waaw waaw ah, dafa génn waaw waaw délégation Laayeen Seydina Issa Laay Thiaw ñu ngi nii Euh, waa kër Serigne Ahmadou Bara Ndiéguène alaaji Serigne Daam Ndiéguène délégation taslima alaaji Khalifa Jaabi mën naa jege si délégation jaamal alxaaji Omar Cissé jiite ko teew fi alxaaji Ousmane Cissé moo daa teew waaye sëriñ bi nee na mi ngi yóbbante nuyoo ngeen ñaanal ko ak wér ñoo fi teew teewal fi waa jaamal jërëjëf. délégation Morola Serigne Jibril Thiombane Serigne Jibril Thiombane euh, famille omarienne bu luga Cheikh Omar Ba euh, ñoom nag sax dañoo jógee Mali bi ñu ñëw xam naa coono yi jàpp leen ñu ngi ci kaw waxoon nañ ñu siyaare sëriñ Maodo Cissé bu Pire délégation Pire sëriñ Maodo Cissé euh, jamaatu nasr tariqat al xaadiriya le xalif seex naa seex nema ay dara euh, délégation Pire sëriñ Mansour Cissé Serigne Mansour Cissé waaw alxaaji jibi njaay pete warak alxaaji jibi pete warak mën naa ñëw saafonte ak sëriñ bi ligue des imams et des prédicateurs Sénégal imam Dame Ndiaye jiite ko délégation Sokone mën nañoo jege si moom it sëriñ Ahmad Mouhamad Dem teewal leen fii euh, ñii ñooy Ligue des imams des oulémas du Sénégal imam Dame moo ko jiite délégation Sokone sëriñ Ahmad Mouhamad Dem euh, waa Medina Baye Cheikh Mouhamad Basir Niass euh, teew nañ fi démb fi lañ yendu euh, saafonte nañ ak sëriñ bi waaye dañoo dañoo dellu dañoo dellu démb jamaxatu xibaatu rahmaan imaam seex Tidiane Fall jiite ko mën naa ñëw saafonte ak sëriñ bi ñoom it niñ ko daa defee at mu jot indi antenne médical fii ci kër Cheikh Abdoul Ahad ngir jàppale ñiy màggal si defa defaat nañ ko euh, sawiya Cheikh Ahmad Wuld Fata Ahmad Wuld Fata Mauritanie euh, famille Ahmad Khouraysi Pape Konar Njegeen Khouraysi mën naa jege si Pape Konare jaañ xuraysi famille Ahmad Khouraysi Pape Konaare Diagne Khouraysi jiite ko euh, waa Ndànk Kunta Serigne Alioune Makhtar Kunta mën naa jege si salfaañi buy yett sëriñ bii daal sëriñ Ahmad bu Sow délégation Mayobe délégation Mayobe nekkul fi station ànd wut jàmm rajo yi ak télé yi oustaz Mor ak oustaz Ndiaga Sène bisimilah ñëwal ñëwal ñëwal. waa Bamba Serigne Habib Sakho mën naa jege si ak délégation Bamba Moodu. jërëjëf jërëjëf. Seydou euh, Sakho teewal fi Serigne Adil Sakho ba Babou Mody Serigne Ahmed léegi sëriñ bi xam naa ne kon euh, tudd nañ ko léegi mooy waa imam Dame Ndiaye waaw waaw waaye xëy na sa si Fadil am na da jàppoon délégation bi mooy liggéey si maam bi sama loolu jërëjëf jërëjëf amin amin amin amin amin amin su ko defee kàddu bi dañ koy jox imaam Cheikh Tidiane Fall euh, mu wax turu ñi fi nekk moom jiite délégation jamaat yi Rahman euh, mu wax turu kilifa yi yi fi nekk yëpp ay kàddu yu tënk su ko defee sëñ bi alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa man walaahum wa saara ala nahjihim ila yawmi ddin amma baad فيطيب لي أن أتناول الكلمة باسم البيوتات الدينية باسم الطرق الصوفية وباسم الجمعيات والمنظمات الإسلامية في السنوات هذا بعد توجيه التحية إلى شيخنا وحبيبنا الشيخ بشير عبد القادر وإلى زعيم الطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى حفظهما الله ورعاهما mbokk yi ñu ngi santati borom bi tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di am mbégte lool ci jël kàddu gi jël kàddu gi ci turu tariqa yi ne ci Sénégal këri diine yi ne ci Sénégal ci turu organisation association islamique yi ne ci réew balay loolu yépp nag di nuyu ki nga xam ni tey jii moo fi toogal Serigne Touba Cheikhul Khadim di Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafizahullah wa raa di nuyu it porte parole di cheikh Bachir Abdul Qadir xafidahu llahu wa raah na leen yàlla sàmm yombul waxal kilifa diine yi ne ci réew mi ak këri diine yi yombul dañuy jéem rek waaye dinañ ko jéem parce que dana ko jàppe sas danu ko jàppe warugar ndax daje bii tey tiitër la ci bépp jullit tiitër la ci bépp jullit loolu nag mënuñu koo wax te santuñu ñi nga xam ni kaanu sababan waraa hada al ijtimaa tiitër la ci ñun parce que dafay symboliser al waxdatul islamiyya waxdatul umma moom la l'islam di visé kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas kon képp kuy jullit dugg nga ci umma boobu waaye ku ne fa nga toll fa ngay commencé waxdatul umma maanaam umma bi yëpp bekk doon benn nga boole sa la ne sa réew ba pare kon nag lii buy am toujours ay kilifa di fi daje yëpp waxda boobu nga xam ni war a am seen diggante loolu defe naa ni lu rëy la kuy jullitit honneur la ci yow xam nga al waxda waxdatul muslimin farida la mais daruura la jullit ñi ànd farata la mais jamono da laaj boole ci loolu su ma koy wax damay delluwaat ci alquran al karim fu muy waxee ñun ni walladina kafaru baaduhum awliyaau baad illa tafaaluhu takun fitnatun wa fasaadun kabir nee na ñi nga xam ni duñu sax ay jullit ay allié lañ dañoo jàppante fasante ay loxo yéen ñi jullit nag bu ngeen ko deful fitna rek lay jur te ku ci ne tey boo taxawee ci monde islamique xam nga ni défi yu bari moo taxaw seen ay samp yu doy waar sax luy laaj ñu boole seeni force di yëkkateendoo di tegandoo loolu mooy tax ñu considérer leen wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhaba rixukum li alquran a ko wax xëccoo bi amul njëriñ xëccoo ngir daraja xëccoo maa fi am doole mais yow am nga yeneen défi yoo xam ne dafa laaj sa mbokk ak yow ak keneen ngeen boole seeni force yépp taxaw xam nañu Sénégal fi mu ne nii ñi taxaw pour suuxal réew mi ñi taxaw pour ñu fàtte sunu bopp fàtte sunu ndono kenn xamul nuñ doon te bis bu ne ñu posé benn acte buy wane loolu waa loolu bu fekkee ni doyunu ba nuy nekk fii di xëccoo ci sunu biir ñu ngay may doole ki nga xam ni noonu ñépp la sunu yonent sallallahu alayhi wa moom mooy wax ni al muslim axul muslim loolu mooy lan li war a nekk de mooy jullit bi nekk mbokkum jullitam laa yazlimuhu walla yaxduluhu wala yuslimu ñetti baat yooyu rek dafa doyoon du ko tooj du tooñ mbokku jullitam du ko toroxal du ko gàcceel waaye du ko jébbale laa yuslimuhu lil jóob laa yuslimuhu lil marad laa yuslimuhu lil faaqa du jeex maanaam du ko jébbal li mën a firi dafa bari mooy bu ko bàyyi mu xiif bu ko bàyyi mu tiit ñàkk sécurité bu ko bàyyi mu doon moom dong yëg ni dafa nekk xarib accompagner kon ñun senegal jàpp naa ni am nañ ndono bu doya doya boo xam ni war nañoo may ñu ànd te yu tuuti yi nga xam ni nag la boroom xam-xam ba waxoon nataawanu fii ma ittafaqna alayhi wa yaadiru baaduna baadan fii ma xtalafna fii code de conduite mu ngi noonu xaw naa nuroo code de conduite ba sëñ defe naa ci wàllu code de la route li nga xam ni ñun wóor nañu ni lii dëppoo nañ ci nañ ci jàppalante góorgóorlu waaye li nga xam ni nag ay yu la ay fariyaat ñi xam xam nañ fariyaat yi mooy lan fara'iyaat yi ya'diru ba'duna ba'dan fiha ku ci ne mën a tolère sa morom nangu ko accepté ko xëy na bu ngeen mosee parce que damay wax toujours wax boo xam ne ñenn ñi dañu koy dañuy defe ni ay ay kaf la ma ne leen gis ngeen waaye ji toog ci ab ruqam di def la muy def julli sax mën naa weesu du julli dafa defeen looloo koy yóbbu àjjana kon yéeneem rafet na safara kenn bëggu faa dem kooku nag doo ko comprendre xëy na li lëntoon ci moom ba mu defee ni war naa mën a faat julli ndax leneen bis bu leeree ci boppam ngeen ànd yéen ñëw loolu nag muñ moo ko moo ko mën a maye a rasulu sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla joxoñ naan ko afa tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin ndax da ngay nit ñi pour ñu nekk ay jullit déedéet ñun dañu war a ànd di liggéey seet yi nga xam ni man defe naa ni proposition sax la màggal gi occasion la bu rëy est-ce que jotul tey mu doon fursa pour que ñu évaluer nat ñun Sénégal ci l'islam bi fu ñu toll lan mooy défi yi nga xam ni mu ngi suñu kanam tey nar noo faagaagal di jéem a faagaagal ñu ne yii mooy ay proposition de solution yoo xam ne ñun ñëpp a koy ànd yaakaar naa ni lii rek mooy bénéfice bi ñu ngi sant waa kër Serigne Touba yëpp ndax lii initiative la boo xam ni ñun bu nu ko rafetluwul woon duñ fi ñëw dañu ko rafet moo tax ñu teew fii tey it day dooleel jullit ñi bis bu nu néewee dooleel nag Sénégal yàq l'islam rek la nu fi am bu nu góorgóorlu ba nga xam ne ñu ngay xeex seen biir. te am na ñuy préparé yu mel noonu fénqale jël kii dóor ca kële kii yaa ko ëpp doole yaa ko ëpp pouvoir alors que li nu boole mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki waral bis bii tuddee boppam xaadimu rasul wala xadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam kon lu ñu war a def rek dafa war a dëppoog sunnatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi am na ñoo xam ni sax rey waroon na ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegu leen sanction boobu la mu leen wax mooy aturiduuna an yaqula naasu inna muhammadan yaqtulu ashaabahu xoolal niveau de tolérance boobu mu am sallallahu alayhi wa sallam xam na ni loola su ko defan nit ñi dañuy wax ni gis nga Muhammad mi ngi wooteeg yonent ak yërmande mu ngi nii di rey ay saxaabaam te xamuñu détails yi la tax ñooñu rey mu teg loolu foofu am nañu mbégte loolu bëgguma guddal loolu jël temps ci jël kàddu di jéggulu nag ci manquement boo xam ne am na ci in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unub ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm yal na yàlla yàggal taxawaay bi yàlla na ngeen ko yàggal taxawee ñu di ko fekkee incha allah mu am ay résultats yu mag te commencé na nag te ca kanam la jëm bu soobee yàlla wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi mboolem suñu ci këri diine yi nga xam ni ñun ak yéen ñeen ñoo bokk xew-xew bu mag ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo di kàddu yu tedd ci ñoom gën a kawe suñu ko lislaam santaane asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kàddu yi nag ñu ngi koy def ci ndigalul ki nga xam ne mooy boroom liggéey bi te woote woon bis bi di ci fàttali ndigalu Serigne Touba di as Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam ngir mu xafidahullahu taala wa ayyadahu wa saada min nasrihi kon ci ndigalam lañ leen di nuyoo ak kàddoom ak turam ak mboolem di nuyu këri diine yi nga xam ne ñoo fi teew yépp bàyyiwu kenn sëriñ bi di leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen dalal jàmm ci bis bu bii di leen waxit marhaban bikum ahlan wa fii ci seen kër ci seen biir bokk ci seen biiri njaboot sëriñ bi nee na bu amoon kàddu ku gën a rëy marhaban ñu ko sunu mbokki waa Mauritanie yi di waxee fa marhaban qawluha fi lawsi muttahidun lakinnaha bi ixtilaafi nnaasi taxtalifu loolu rek lañ ci wax waaye ñu ngi leen di dara jàmm bu ci ni ma ko baaxoo defee nag bu ñuy ñëw maa ngi ànd ak ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo seq liggéey bi ci ndigalu sëriñ bi te buñ ci tuddee sëriñ Cheikh Baaram Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne at yi moom la sëriñ bi di yéen ci yéen gàmmu yi ak ci màggal yi di ko ànd ak yéen ñu ngi topp ñoo ànd liggéey bi sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibnu Serigne Cheikh Gaynde Fatma mi nga xam ne moom itam xam ngeen ne commission bi ñuy wax culture ak communication ci màggal Tuubaa bañ ko sosee ba nëgg ni ci loxoom la nekk jataay bii itam yàlla def na ni ma ko waxee démb rek bis bi fi waajuram wàccee yàlla suñu borom dolli ay leeram na ko ñëpp ñaanal muy soxla bari bis boo loxo ma sa tàlle te ñoo ko ànd bu takk sonn di nuyu suñu bokk yi nga xam ne xaw ma suñu nijaay lañ xaw ma lu war a doon sax ñooñu fi teewal di di leen dara jàmm di sëriñ Abdul Ahad Bousso moom bàyyi sëriñ ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Thierno ak mboole ñu ngi ko siqal di waa Muqaddamatul Xidma ak ñu ngi ko àndal di waa wilaaya di ci def taxawaay bu rafet boo xam ne waxuma la man sama jëmm waaye as Cheikh Mouhamadou Mountakha mii borom liggéey bi bu ko mënoon moo fi teewal boppam ci saal bi ku agsi ku ne mu nuyoo yow saafonte yow boole laa kenn ñoom mu dara la seen néeg waaye xam na ne mën nañ koo wuutu ci loolu ndax ni ñu demee ci biir yoon bi ak ni ñu demee ci biir bokk bi kon ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu bu baax na jataay bi. nga xam ne jataay la boo xam ne jataay bu seer la ci ñun ndax lii kat li ñuy wax safha jadida ubbi na ko lu bari ci senegal ndax tax na kumpa gu bari gu amoon ci biir kër yi lépp dañ na ndax yàlla def na lislaam ji lenn la li ñuy woote lenn la kon ni ko kilifa gu tedd gii waxee léegi kàddu yu rafet la wax kàddu yu am solo kàddu yu xóot yu làmboo lu bare bare moo tax ma del si wàcc ndax daanaka li ma waroon wax ci biir yëg wax na ko kon lii minbar la boo xam ne luy defar lu bari la ndax lépp luy indi wahdatul muslimin la rek bokk na ci mission Serigne Touba Serigne Touba tariixa musu koo tënk lu mel nii rek la ko jullit yëpp marché àndandoo ci li ñuy def kon bu demee ba màggal gi nekk muktamar boo xam ne jullit yi kenn bu ci dañ koy jàpp seen yëfi ko te loolee itam li koy firndeel mooy yéen ñëpp am gàtt ndax xam na ni jamono xat na lay jut ay daje fii àdduna toll ci li xew ci wér-gi ak fi mu toll. ñëpp amoon gàtt moo tax sax ku ci ñëwutoon ku ne li wolof yi di wax naan bu reer bu reer doon doon doy doon doy kon reer daaw yi doy kon kuñ ci gisutoon itam yónnee wa ndaw ñoo lay wutal gàtt ndax am na ci ñoo xam ne ngànt weesu seen bis bopp ya am te gën koo fonk loolu bàyyi nañ ko ngir fi jamono toll kon nag loolu lépp nag. bu ñu ko bàyyee wëlbatu ko yónniwaat délégation loolu li muy firi rëy na te yëg nañ message yu ñu toll ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ak ci turu njabootu Serigne Touba gépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu jataay bi di ko fas yéenee ànd ak yéen lépp loo xam ne xewle ngeen ko rek ñu tam ni ñu ko defee ñu ànd ko yéen ñeen tam incha allah ndax lii rek moom la suñu borom bëgg. ba tax muy wax innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wa anna haasihi ummatukum ummatan la ca nag li suñu mbokk baax mi wax léegi rek mooy li ci am laa ikraha fi diin loolu ku ko jiital rek doo forcer kenn ndax dafa man lislaam ci boppam dafa man saraha allahu sadrahu lil islaami fa huwa halaalun rawatina nag ki xas ba tàbbi ci biir lislaam kon waxtu dama ne ko fàttali muy kàddu bu ma ñor xeex bi nekkul ci diggante jullit ak bokkum jullitam xeex bi ci ñuy bokkulu lislaam fexe ba gindi leen yee leen ba bañ xam lislaam foo ko la xeex bi nekk te loola ku koy def itam ni ko islaam santaane rek mooy ud'u ila sabili rabbika bil hikma wala mu wax ay rajo de xasara wala jaay doon julliti yi xasara ndegam ñi nga bokkul lislaam sax loolu la lislaam sax ki nga bokkal xeex bi ñëw soo ndax li ëpp ñoo ko bokk kon ni nga ko waxee léegi rek nataawoon fii ma fii ma talaf naa wa nataawoon fii ma talaf naa ndax lislaam ji ponk yëpp ñoo ko bokk. shahaada ashhadu an laa ilaaha illallah ñoo ko bokk iqaamu ñoo ko bokk itaau zakaati ñoo ko bokk xajjul bayti ñoo ko bokk sawmu ñoo ko loolu la mooy ponk yi mooy ponk yi ci des yëpp ñu ngi ko waxee ay bànqaas la bànqaas nag jëru jur jur ak nooneel ba loolu bokk na ci li nga xam ne ñi gëmul lislaam ci li ñuy xeexee diine la bokk maanaam ku ne ñu gis ñu gistoo la sa bopp te yëf yi ñoom soow yëf yi ci def nit ñi la nekk yëf yi fexe ba ñëpp jub ci la nekk yëf yi fexe ba ñëpp bennoo ci kalimatu laa ilaaha illallaah la nekk kon loolu nag kenn ku ci ne am nga responsabilité ci sàmm moo tax kii fi nekkee Sëñ Tuubaa di Cheikh Mouhamadou Mountakha na ko kilifaam yu jëkkee daa sàmm ba mu ak si woon noonu la ko fas sàmm mooy kenn ku ci ne la ko war ci sa liggéey moom ci àqib islam bi mu motul moom kon nag ñu ngi leen sant leen gërëm di leen xamal ne kat la way juróom wu tedd wa daa wax rek Cheikh Abdoulaye dadaa wax ne seenu cant awmu sama làmm ñu lott la ci wax waaye nag ñu ngi leen di bàyyee yàlla suñu borom bi leen tax di jëm yàlla na leen fay ci jéego yi ngeen xam ne ñëw ngeen ak dellu si ñëw gi ak delluwaat lépp yàlla nekk ay tuyaawam li suñu borom daal di ci allazina yuufuuna bi ahdillaah wala yanquduuna al-miithaaq wallazina yasiluuna maa amara llaahu bihi an yuusala wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suu'a al-hisaab wallazina sabaruu ibtigaa'a wajhi rabbihim wa aqaamuu salaata wa anfaquu mimmaa razaqnaahum sirran wa xalaaniyatan wa yadruuna bil xasanati sayyi'ata loolu am solo la ulaa'ika lahumul xuluud kon yàlla na leen ci yàlla tàbbal bala maa jeexal nag faw ñu jàll mboolem suñu kilifa yu tedd yi bàyyeekoo ci biir lislaam bi ci biir yoon bi ci jataay bi nag buñ ci tuddee alxaaji abdullahi alxaaji abdullahi nga xam ne moo nekkoon alxalifatu moom ci laayam alxaaji abdullahi caw di ko teg ci loxol doomam Seydina Isa mi nga xam ne waaye juróom li ñuy def nii tuyaaba ju ci nit am rek dana ko jëm ndax ba mu koy def ci jamono Cheikh Abdoul Ahad booba na ngànt ndax xam nañ cër bi am ci Sénégal xam nañ am cër bi ci biir réew mi waaye mësu yónni ndaw moo daa teewal boobu mësu koo màgg boole kook ay seere yoo xam ne bu ci ëggutoon ci rafetal du teew doy ba mu demee ba yaram mënatu ko mu yebal taawam bi mosu koo jënd keroog ba ma fa sëriñ bi yónnee maa nag sëriñ Abdou dégg nañ kàddu yow wax wax nag li muy baax baax jëfa ko ëpp solo ndax jëf mooy tur mooy tur boobu wax na mu ko waxe woon nag jëfe na ko noonu kon nag sëriñ bi yëg na ko ni mu ko jàppe woon moom itam ba defee nii mu defee sëriñ bi xamee na kon ñuy fet di ko dëri gi di ñaan way juróom bu tedd woowee suñu borom doole leeram te dëgëral leen ñoom ndax dundam gépp ci lislaam ko jaxam waaye ni ma ko waxee ci Omar mboolem kër gi nii yëpp noonu lañ leen di siyaare noonu leen di jaaree li nga xam ne di ñaan lii xam naa ne jotaay bu gudd ne te am na fee fu ngeen wax ne bu fekkee fàtte naa dara maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum sa micro. أضاف إليه الإقبال غير الأرى مدى وفي في شهر زين ربحي وفي سفر